Oumy Samb lañ ciy àndal niñ koy defee saa su ci waxtu wi Oumy Samb ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay soxna Fati bonjour à toute la team et puis euh, bien le bonjour à vous chers téléspectateurs on y va donc pour xibaaru euh, jaww ji comment on débute ce mardi donc week-end bi c'est passé trois jours du vent boo xamante ni yëkkatiku na bu baax. Euh, rawatina ci dëkkuwaay yi dëkk ci booru géej gi c'est normal puisque euh, peexu géej bi di jógee Europe dafa sedd guy moom la ñu ressentir nii fi mu toll nii donc on continue avec ça euh, am nañ abi de vent fort boo xamante ne tay lay bisub tey jii lay tàmbali jëm mercredi soir Euh, incha allah donc ñu wéy di topp xibaar boobu xool naka la nar a évoluer sinon pour le reste donc des températures qui euh, débutent à 18 Euh, degrés la plus basse donc pour Dakar 18 degrés Louga 19 25 degrés pour Kaffrine et puis comme d'habitude plus ñuy dugg ci biir réew mi rek plus température di gën a kawe on avoisine les 30 degrés diggante Tambacounda Kédougou euh, ñu xaarandi fa 29 donc degrés daal ça veut dire que guddi gi ñoom euh, tàngaay lañ fanaanoo euh, yeewoo ko tamit ci suba gi nar ko yendoo bu ñu xoolee digg bëccëg bi naka nar a nar a demee donc les températures repartent à la hausse mm. euh, sur la moitié est du pays donc gis ngeen ko nii 41 pour Kaffrine 42 pour Sédhiou 44 ce sera la température maximale euh, pour euh, Matam 42 Tambacounda 41 pour Kédougou et puis sur la ci ouest du pays euh, Dakar moom ba tey moo jël raw gàddu gi ma ci température après-midi bi. 24 euh, lañ fay xaarandi avec un ressenti qui est très frais euh, gis ngeen li mu demee rek fan yi passé donc on continue comme ça pour les jours à venir 28 degrés pour Saint-Louis 36 degrés pour waa Ziguinchor ci wàllum asamaan si donc jant bi dina fës incha allah et puis dina ànd ak quand même quelques fins voiles nuageux qu'on voit par ici sur l'illustration qui n'auront aucune conséquence sur l'atmosphère mu ngi noonu loolu la ñu euh, nar a yendoo tey et puis bu ñu demee ci géej gi ñu gis ne que ngelaw boobu noonu euh, di euh, descendi ak ñun dafay indi houle bi donc il y avait un avis de houle jusqu'à vendredi donc ba tey sur l'axe Dakar Kayar houle bi mu ngi fi ba tey ginnaar gi donc nappkat yi le gilet de sauvetage le GPS et puis votre boussole de rigueur pour les marées 14h48 donc marée haute bi Euh, marée basse bi ci des donc 21h14 lay doon euh, ci ci guddi gi maanaam quand il fera nuit noire les pêcheurs le gilet de sauvetage à ne surtout le lever du donc il a eu lieu à 7h05 et puis le lañ ko fas yéene euh, seetlu mu ngi nii à sur l'hémisphère sud ñu dem xool ji donc wàllum euh, kay Ramadan la page Ramadan heure de rupture 19h23 juste une minute après le coucher euh, du soleil qui est prévu à 19h22 et puis l'abstinence maanaam heure arrêt xëdd bi suba Euh, ñu jàpp ni que 5h49 lay doon dernier cara euh, pour les derniers retardataires sama genre gi. mi ngi noonu ba ci kanam. Euh, tuuti ci ñaareelu pàcc bi on fera ça en express à tout à l'heure mbokk yi jërëjëf. merci beaucoup ñu jaajëfal ko bu baax a baax Oumy bu mu nekkoon li nga xam ne moom mooy météo bi 7h34 mbokk yi moo jot ci mbuur jot itam ci gox yu fasantikoo yi nekk ci biir Sénégal.